at mu jot ginnaaw bu ñu màggalee Tuubaa ba noppi am na ndaje mu mag moo xamante ni daayira mu xaddamatul xidma dana ko amal loolu nag def nañ ko ci ginnaaw màggaluk Tuubaa édition 2024 bi muy ndaje moo xam ne amal nañ ko ci kër Sëriñ Afe Buso imam nga xam ne dafa dajale woon mboolem jëwriñ yi nga xam ne dañuy jàppale daayira mu xaddamatul xidma te nekkee ci diaspora bi moo xam Europe la Asie Amérique ba ci Afrique mboolem jëwriñ yooyu nag teew ci jataay bi ñu waxtaane fa waxtaan yu am solo yoo xamante ni dafay jëmale kanam liggéey bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi koy amal fii ci Touba rawatina ci diaspora bi yëpp ci jotaay bi nag mboolem jëwri nii kenn ku ci nekk yëkkati na fa ay kàddu yu am solo yoo xam ni lépp dafa jëm ci li nga xam ne mooy gën a taaral liggéey bi ak taxawaayub daayira Muxaddamatul Xidma rawatina li nga xam ne da koy gën a jëmale kanam kon mbokk yi ñu ànd teewlu mboolem kàddu yi nga xam ne rotee na ci ndaje mi nga xamante ni daayira Muxaddamatul Xidma ñoo ngi ko doon amal ci kër Serigne Afe Bousso ginnaaw bu ñu màggalee Touba édition 2024 bi ba noppi doon ci ànd ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne dañoo nekkee ci diaspora bi. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax. di jiital ci nuyoo bi kilifa gi sëriñ Afiya Buso imaam mi nga xam ne moo jiite daaira muxaddamatul xidma di kilifa jataay bi ñu nekk fii ci këram ngir ndaje mu am solo mi nga xam ne daa daaira muxaddamatul xidma daf koy def at mu jot moom mu am ñu am taw féexe di daje fii ci këram mu ñuy berndeel di ñu ganale ngan gu neex macha allah ñu ciy ànd ak suñ jëwriñ yi nga xam ne ñoo ñu nekkal ci diaspora bi te dañu jàppale ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne dañoo ànd boole seen bopp ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci jumaa ji at mu jot ñu teew fii ci këram mu na ci defal ñu ay bernde yu am solo ñu ngi koy nuyu te di ko siyaara te di ko sant bu baax a baax di nuyu tamit kilifa yi nga xam ne ñoo teew fi jataay bi ànd ak moom mën nañ cee ràññee sëriñ Mourtada Niang alxaaji Mouhamadul Mourtada Niang moom sëriñ Afiye Niang ak sëriñ Bousso bi Bousso imam di imaam fee ci Paris naa ñu bëri ci jataay bi xam nañ ko sëriñ euh, Seexuna Bousso Muxtaar ak la kilifay daayira bi secrétaire général sëriñ Abdoul Ahad Bousso Abdoul Moutalib ak seen sénéral général Serigne Abdoul Ahad Bousso Mokhtar président commission relations extérieures et sociales Serigne Abdoul Ahad Maasta Serigne Abdou euh, commission communication Abdoul Ahad Bousso euh, commission culturelle ak euh, waa commission organisation Serigne fàllu Mbacké mi nga xam ne moo ko jiite tamit mu ngi fi ak ay arcm ñu topp ci moom ñëpp Serigne Abdoul Ahad Bousso Afie mi nga xam ne tamit moo yor wàllu bureau bi ak wàllu finance te ñu bëri ci yéen di jëflante ak moom ci numéro Wave Moukhaddamatoul Khidma bi ñi ngi nuyu tamit bokk yi fi teew yëpp it euh, xëy na ñi fi teew incha allah ñi ngi bind tur yi noppeegut waaye mën nañ cee ràññee waa Angleterre sëriñ Fallou Diop mi ngi fi teew ànd ak Serigne Abdoul Akim Mbaye ak sëriñ moodu Niang moom Serigne Djili Niang moom Serigne Modou Khari Niang moom it nekk foofu ci Angleterre Brighton Euh, ñuy nuyu tamit euh, waa Argentine sëriñ Dame Cissé ak ñim àndal di nuru nuyu waa Uruguay sëriñ Xaadim ñaŋ ak soxnaam ak rakkam ñoom it ñu ngi ci jataay bi di nuyu waa Côte d'Ivoire sëriñ Touba ak sëriñ Baara Fall ak sëriñ Mor Faasa ak sëriñ Cheikh Faye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom it di nuyu tamit waa Touba Conakry sëriñ Saliou Ndiaye ak sëriñ Mor Thiam sëñ Saliou muy sëñ Ndiaye saaliwu euh, di nuyu tamit euh, mooy sëñ Babacar Ndiaye la tudd xam naa ne sëñ bi dafa euh, Ndiaye Saliou lañ koy wax moom waaye sëñ Babacar Ndiaye la tudd di nuyu tamit waa Italie ki leen fi teewal di sëriñ Ibrahima Sëy di jëwriñu toskaana teewal fi waa Italie gépp ànd na tamit ak waa euh, Alexandria ci itali Sëriñ Fallou Diop teewal leen fi ñooñ ñoo fi teewal waa itali moo xam sëriñ Daaru Touré sëñ Ibrahima Jaay xasida ak euh, sëñ Xaali Jaañ ñoom ba ci waa Emilia Romagna ak Marc ak Brusu di sëriñ euh, naa Mbàkke Rimini sëriñ Daam Lay ñoom ak sëriñ Cheikh ji ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu tamit waa Touba Mali sëriñ Maam Góor ja ak sëriñ bàmba Diop ak sëriñ Abdou Khadir Mbow ak sëriñ Thierno Fall ñoom it ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa Bamako yëpp ak dëkk yëpp euh, di nuyu tamit waa Touba Espagne euh, mën nañoo wax ne ñu bëree bari teew nañ fi ci kilifa yi ñi ngànk liggéey bi mën nañ cee jiital sëriñ Assane Diop jëwrin sëriñ Fallou Dia ak sëriñ Modou ak euh, sëriñ Baye Fall Faye ca Taraguna ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen euh, siyaare di nuyu tamit euh, bokk na ci ñi fi teew ci waa Côte d'Ivoire waaw limoon li léegi xam naa kon ci des bu ñëwee nga bindal ma leen incha allah xam naa nag ngir ndaje mi mën nañ mën na mën na su na koo tënk ci xaw a améliorer tuuti temps bi su ko defee jàpp naa ne li am solo rek mooy ndaje mi am na solo lool ngir ñu liggéey bi ñu yàlla boole ñu nekk ci kon suñ ñëwee tamit war nañoo def jàngat ngir leeral bokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan na ñoo fi teew lenn ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ndax diaspora bi dañuy jàppale ci wàllu finance kon suñ teewee fii ak ñoom bokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci site internet yi nga xam ne wala télévision yi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal buñ ci jiitalee MKTV MKTV muy Muxaddamatul Xidma TV ak GMT TV lu mel ne Al Istiqama Kojale TV TV Assane ak yeneen site yi nga xam ne ñoo lëkkaloo ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom it ak euh, Sëñ Tuubaaloo sa DSS TV waaw surtout sëñ Touba loolu moom it ñoom ñoom ñu ngi leen di nuyu. xam naa kon li ñuy def mooy bala ñoo jox jëwrin yi kàddu dañuy def benn rapport bu gàtt rek leeral liggéey bi euh, niñ koy leerale nag danañu leeral euh, liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ci at mi li tàmbulee mois de janvier ba tey euh, leeral tamit liggéey yi nga xam ne jaspora bi na li nga xam ne jàppale nañ ko daaira Muxaddamatul Xidma moom it euh, ci at mi su ko defee euh, dana am solo ci ngir ñu xam par rapport objectif yi ak li li ñu bëgg ak li ñuy am ak fi ñu jëm loolu nag xëy na kilifa gi buy wax kilifa ki wax ci kàddu daayira bi dana dana ko leeral suñ noppee danañu leeral tamit euh, lu aju ci jaayante añu jumaa ji moom it fan la toll loolu danañ ko leeral kon su ko defee bu ma njëkkee ci fere yi ferey daayira Muxaddamatul Xidma li tàmbulee ci atum 2024 weer yi li ñu dépassé ci weer yi ci weer yi atum 2024 soo ko dee xool bu ñu ko détaillé par weer weeru janvier un million cent quatre-vingt-onze mille quatre cent février million cinquante-huit mille un million cinq cent quatre mille cinq cent trois cent cinquante mars euh, six cent trente-huit mille neuf cent trente avril mille neuf cent mai un million cinq cent soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante janvier Euh, juin sax ma naan waaw euh, un million cent quatre-vingt-neuf mille cent juillet un million cent douze mille deux cent cinquante août euh, neuf cent seize mille huit cent cinquante boo ko boolee ci weer yi li ma wax janvier ba août nii muy weer wii ñuy jeexal nii dépassé nañ ci weer yi muy dépassé ay weeram neuf millions deux cent quarante-huit mille deux cent trente loolu nag Euh, am na yoo ci génne yoo xam ne lu mel ne lenn ci fay gardien yi nga xam ne mairie mairie Touba dana danañu ci jàppale ak yenn bagages yi euh, euh, yi nga xam ne it dafiy ñëw ak personnel bu bàqee aussi muy gardien yi personnel bu bàqee morgue bii nga xam ne mooy morgue bi ak personnel bu bàqee seen salaire jógewul ci lii ma wax ci beneen dépasse lay jóge muy dépasse su yi yor armel yi léegi nag su fekkee ne loolu ma wax noonu mooy weer yi ci atum 2024 léegi nag événement yi lan la mu Muxaddamatul Xidma di dépassé ci événement yi boo dee xool màggalug Touba budget màggalug Touba mi ngi doon 18 millions 277 mille 100 muy budget màggalug Touba loolu nag nag ndawal bokk ci maanaa fukki nag ak giléem yi nga xam ne dépassé nañ ko ci ak ceeb da nga ko ci génne <coughs> ak ndugg mi boo boo boo boo boo ci génnee loolu nag dépassé nañ dix huit millions deux cent soixante dix sept mille cent francs ci màggalu Touba bu dee weeru koor ci xaalis li may bëgg a nii moom la cinquante deux millions huit cent cinquante quatre mille cent ci xaalis ci weeru koor loolu tamit bagages yi nga xam ne dañ koo indi bokkul ci xayma bi. gis ngeen rapport daaw bi bi biñ boolee bagages yi ak xaalis bi àggoon na ci soixante douze soo boolee lii ma wax nii lépp nag boo ko boolee soixante onze millions cent trente deux mille lay doon ci xaalis nga totalee événement yi boole ko ak weer yi loolu lépp soo ko boolee ci at mi yëpp nga xam ne lépp dugg na ci quatre vingt millions trois cent quatre vingt mille cent trente lay doon. te loolu nag fii ñu yam nii gàmmu ñëwagut waaw waaw noonu la demee kon li daayira bi fere ci at mi te bagages yi bokk ci yenn bagages yi ma wax quatre-vingts millions trois cent quatre-vingt mille deux cent mooy li jàllagun laa la wax de mooy janvier ba août parce que su ko defee nag ci biir loolu suñ dee xool participation bi nga xam ne diaspora bi def na ko ci moom tamit nga xam ne ci at mi mooy événement yi nga xam ne dañuy indi addiya yi muy koor ak màggal ak gàmmu euh, fondation xaddimatul Xidma Touba Amérique bi nga xam ne sëñ Seex Jonn moo ko jiite sëñ Amsatu Laam euh, may Maymuna ak soxna jaar a Fay ñoom boo boo xoolee ci koor gi indi nañ 4 millions euh, cent vingt mille neuf màggal la loolu màggal la 4 millions 120 mille 901 muy màggalu ren gi loolu lañ loolu lañ fi indi fondation Italie fédération Italie euh, bi nga xam ne tudd naa léegi suñu Ibrahima Seye mi leen fi teewal 768 euh, mille lañ indi ci koor gi màggal maggalu ren la 768 mille fédération Touba Espagne màggal gi ren 2 millions lañ fi indi 2 millions fédération Espagne fédération daayira Miftahu Nasri Argentine cent mille francs France euh, indi nañ fii quatre cent quatre vingt mille trois cent jàpp naa sëñ Assane xëy na benn dëkk la rek sëñ Assane euh, bu dee France bu ñu tuddee France nag benn dëkk la boo xam ne sëñ Assane fee mu nekk dafa été moo ko fa doon laaj kon loolu tamit ñi seetaan ñu xam ko suñ busoo bi it xamaale ko da ci am solo maanaa dëkk bee suñu asan di etee ñoom ñoo dajale day 482 300 daayira Taysirul siir Touba Uruguay Touba Uruguay ñoom it indi nañ fi cent mille francs kon soo totaalee màggalugu ren li nga xam ne moo jógee diaspora bi te tuddaguma lii nii euh, li jógee Afrique xam naa da ci am loo xam ne léegi la ñëw nii après euh, tey la ñëw mën naa mën naa koo tudd fekkee pilis nga ko ci lii euh, euh, Alexandria Italie indi nañ fi quarante mille francs Côte d'Ivoire indi nañ fi cent deux mille euh, Mali indi nañ fi cent quatre vingt cinq mille ak yaakaar naa Angleterre tamit am na lu ñu indi léegi nii Sëñ Fallou Diop wax na ma ko maanaam dayra Londres Londres muy daayira wakaana xaqan bu Touba Londres ci jiital euh, jëwrin jëwrini Touba Londres ci sëñ Ablaye Dieng Fawseyni ak sëñ Fallou Diom mi sëñ ak Akim mbay indi nañu cinq cent mile yaakaar naa am na sëñ Abdou Akim Mbaye tamit addee jum joxe woon léegi mu toll ci cent mille francs kon six cent mille tamit dolliku na ci ci ci jóge na ci liggéeyu Angleterre ci màggal kon loolu mooy liggéeyu màggal gi kon total bi lii ma wax nii da ko ciy dolli léegi 7 millions 571 mille 201 Sëñ Abdu Lahat dollil ma ci liñ mujj a wax noonu bu ko defee mooy doon total liggéeyu diaspora bi ci màggal gi bu dee gàmmu gàmmu moom buñ ko xoolee jàpp naa ne fondation Moukhaddamatoul Khidma Amérique rek ñooy participer gàmmu yaakaar naa sëñ bi waaw Euh, muy gàmmu gi jàll gu ñëwagul indi nañ ci indi nañ fi huit huit cinquante et cent soixante onze waaw. boo xoolee tamit li jóge bitim réew ci biir koor gi yëpp total bi mooy neuf millions deux cent quatre vingt li jóge bitim réew ci biir koor gi yëpp 9 millions 291 mille 698 maanaam loolu moo jóge bitim réew ci biir koor gi kon léegi suñu budget koor nga xam ne 72 millions la kon bitim réew li mu ci participé mooy 9 millions 291 mille 698 bu dee màggal gi li jóge bitim réew mooy 7 millions 571 mille 201 kon total at mi li jóge bitim réew lépp 17 millions la 748 7 17 millions 700 714 mille 70 francs 17 millions 714 mille 70 francs loolu moo jóge bitim réew ci at mi yëpp moo xam koor ak màggal ci diaspora bépp nag la wax Europe ak Afrique ak Amérique Euh, nga dolli ci 3 millions 500 yi nga xam ne waa Espagne dañu koy séddale social maanaa loolu bu ñëwee du dugg ci keesu Moukhaddamatoul Khidma dañ koy séddale waa jumaa ji kon ñoom ñoo koy séddaleel seen bopp loolu boo ko xoolee kon day doon 20 millions 500 kon daanaka yu teg boo ko ci boo ko ci plissé kon dafay mel ne 25 pour cent lay doon si ñëpp laxat maanaam 80 millions 380 mille 230 mooy ferey daayira bi ci at mi. bitim réew participé nañ ci 17 millions 714 mille 714 mille 70 francs plus sociale bi Espagne di joxe muy million millions 500. nga dolli ci tamit euh, fédération Emilia Romagna Marche ak Brusque muy waa Touba Rimini ak li ko wër ci njiital sëriñ Cheikhouna Mbacké sëriñ Dame Lay ci bagage indi nañ fi 71 sacs suukar 71 sacs suukar. loolu kon mooy total bi ci boo ko xoolee ci li fi bitim réew indi waaw xarim Thiam suñu xarim Thiam Las Palmas indi nañ fi 385 euros muy 275 mille 250 suñ Modou Gueye joxe na 10 000 addiyee loolu lépp ci addiyee magal gi lay dugg soo détaillé kon atum 2023 2024 euh, par dëkk ci bitim réew xam wax na total bi lay fondation Amérique ci at bi muy koor ak maggal ak gàmm million cinq cent millions 511 million cinquante 51 mille cent 171 lañ fi indi fondation Amérique bu dee koor gi fondation Amérique mi ngi mi ngi indi ci koor gi li 2023 laay wax waaw kooru 2023 mooy. mooy total waaw mooy gàmmu koor màggal huit millions cinquante et mille cent soixante onze lañ fi lañ. huit cent cinquante huit millions. mille cent soixante onze. waaw moo tax moo gàmmu la moo tax ma ne woon gàmmu waaw bu dee koor fondation Amérique koor gi indi nañ trois millions sept cent soixante neuf mille cent cinquante trois fédération Espagne indi. deux millions deux cent cinquante huit mille deux millions deux cent cinq mille huit cent trente cinq koor laa wax koor laa wax de bokk social bokku ci bokk ak li ngeen séddale waa wax na léegi li ngeen séddale woon ko Guinée Conakry indi nañ fi cinq cent mille Guinée Conakry euh, Brésil indi nañ fi 320 000 Suède sëñ Ndiaw Baye Fall di jawrin ji indi nañ 272 655 muy euh, Stockholm ca Suède waaw fédération Veneto bu Italie 100 000 francs daayira fédération Mali bu Xadimatul Xidma Mali njiital suñu maam Balla Gueye indi nañ 153 cent 153 000 Belgique ak Hollande muy fédération Belgique ak Hollande ak 51 ca France dëkk bu ñuy wax 51 ca France boo boolee seen addiye ji mooy deux cent quinze mille cent cinquante cinq Amérique trois cent mille Amérique gii nag may wax nag mooy euh, fondation Muxaddamatul fonda euh, mooy ñu bokkul ci fondation mooy FONCAP FONCAP Porto di ca Portugal indi nañ fi moom it soixante deux mille six cent quarante cinq mooy waa Portugal kon li ñu indi mooy soixante deux mille six cent quarante cinq Cap Vert 84 355 Touba Uruguay Uruguay 100 000 francs Angleterre euh, 631 400 Scotland 80 000 Italie boo boolee 71 sacs suukar yi ma wax léegi ak li ñu fi indi ci xaalis lépp boo ko boolee 71 <coughs> euh, sacs suukar yi mooy suukar si waaye li ñu indi ci àddiyee mooy 497 520 kon total koor gi li jóge ci bitim réew mooy million 9 millions 291 mille 698 waaw kon loolu euh, loolu leer na ci biir loolu nag am na addiyee yi nga xam ne mi ngi jógee Istanbul ca Turc ñoom ay bagage lañ indi mooy bagage yu amal njariñ daayira bi la parce que day wàññi ko ci fere yi te bagage yi ñu indi tamit dafa dafa baax ndax Turc xam ngeen ne bari nañu ay jumaa lool ci njiital sëriñ am diggéey indi nañ 48 balai carreau 24 pelle tournikaay ak 150 masse bale ak raquette ak 100 raquette simple 20 bërigo liquide détergent muy liquide bu bu tal boobu loolu euh, liquide concentré boobu loolu waa Turquie Istanbul ñoo ko indi kon su ko defee ñu ñëw nag ci beneen pàcc boo xam ne dafa beru muy jaayante añi jumaa ji suñ sëñ Ablaye euh, euh, sëñ Fallou Diop ak sëñ Abdou Akim mbay ñoom ñi nga xam ne ñooy jëwrin yi jaayante añu jumaa ji yaakaar naa bi ñu ko jaayante ak léegi ñu ngi ko jaayante woon le 30 11 2022 soo xoolee ci biir loolu mën nañoo bañ a détaillé dëgg-dëgg waaye cent 237 ñoo ci jaayante 237 personnes ñoo jaayante ku ne 80 000 ci loolu boo ko xoolee Angleterre bi nga xam ne ñoo porté woon initiative bi 92 yi ñoom ñoo ko jaayante 92 ajjuma yi ñoo ko jaayante Sénégal jaayante nañ ci 35 Amérique jaayante ci 31 Italie jaayante ci 28 Espagne jaayante ci 28 ñoom ñaar ñoo tolloo Guinée Conakry jaayante nañ ci 5 France 4 Côte d'Ivoire 2 Mali 1 Chine 1 ñooñ ñoo jaayante ci. añi jumaa ji añi ajjuma yi ci jumaa ji Angleterre 92 Sénégal 35 Amérique 31 Italie 28 Espagne 28 Guinée Conakry 5 France 4 Côte d'Ivoire 2 Mali 1 Sine 1 loolu nag euh, képp ku ci jaayante ak foo mën a nekk rek ak date baag la ca def lépp bi ngi ci rapport bii du jar ñu koy détaillé kon jàpp naa ne kon bu ñu dee def bilan kon suñ nattee li daayira bi di fere ak li ñu diaspora bi di jàppale yaakaar naa leer na kon su ko defee ñun foofu lañuy ñuy yemale suñ kàddu euh, danañ jox jëwriñ yëpp ñu jël kàddu bu noppee nag euh, kilifa yi daayira bi am am ku ci yëkkati kàddu kon su ko defee dañuy jox suñu Assane Diop xam naa ku ñu jox kàddu rek mu mu tënk ngir waxtu yi ndax ak ak nawet bi suñ Assane Diop jëwrin bu ko defee yow la ñuy njëkk jox kàddu ci tu waa Espagne ak it nga dalal tamit euh, mbooloo mi euh, ci lu mu gën a tënkoo sëñ Assane bisimilah. billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan wala mbooloo mi ñoo ngi leen di siyaare ginnaaw bi ñu jiite léegi siyaar bi Serigne Touba Cheikh Maodo Mountakha yàlla na fi yàgg di siyaare sunu jëwriñ sëñ Afi Busal imam euh, di siyaare tam sunu jëwriñ yi nga xam ne ñoo toog tey jàkkaarloog mbooloo mi nga xam ne ñoom ñooy daayira bi muy sëñ Abdoulaat Mamasta mi ñuy sësal euh, doon kenn ci jëwriñ ji nga xam ne moo jiite waa relation extérieure ak sëñ Abdoulaat Thierno mi nga xam ne moo jiite euh, commission culturelle bi jumaay Touba ànd ak ñun ci diaspora bi di ci liggéey liggéey bu rëy a rëy sëñ Abdou a ngi nii toog yor kàddu sëñ Afia eh, ak secrétaire général sëñ Abdou Lahad Moutalib ak sëñ Fallou Mbacke ak mboolem waa daara bi yëpp ñu ngi fi mu mel ne jataay bii moom sëñ Afia moo ko tànn ngir yitte ji nga xam ne waa diaspora amal nañ ko jumaay sëñ Touba ci liggéey bi moo tax sëñ Afia xam ne tamit. ñépp a ngi liggéey waaye moom it am na ñoo xam ne ñoom euh, kenn gënut ci ñoom ci moom ci waa daayira bi da waxaloon na ko boppam fii ci at mi nga xam ne toogoon na fii ne yéen day maay seen seede ci seen diggante ak sëñ Tubaa ci li ngeen koy liggéeyal ci jumaa ji seenub liggéey egg na ci sëriñ Tubaa te sëñ Tubaa gërëm na ko loolu sëñ Afe seedaloon na ko fii Euh, nañuy def ba dajale mbooloo mi doon liggéeyal sëñ tubaa ci jumaa ji mbooloo mépp daje ci baasu exposition bi fee euh, sëñ Bass ñëw yeewi leen sant leen gërëm leen euh, ci taxawaay bi ñu taxaw liggéeyal nañ ko sëñ Tuubaa moo tax sëñ Afe tam beral waa diaspora bi bis bii nga xam ne kenn raxu leen ñoom ñoomu neen ñoo ko dajeek moom fii ngir seede seen jëf seede seen taxawaay yaakaar naa ku dégg rapport bi sëñ Abdoulaye Bousso leeral suñ diggante ak jumaa ji suñu diggante koor gi suñ diggante ak màggal gi suñ diggante ak añi ajjuma yi suñu diggante ak matériel bi mooy lépp loo xam ne lu aju ci jumaa ji la rek euh, ñoom dañ cee bàyyi xel waa diaspora kon daal liñ ci doon wax mooy euh, ñun ñoo ngi yëkkati kàddu cant yoo xam ne euh, dañ koy tasaare nag ci jasporaa bi yépp diggante Amérique ak Europe ak Asie ak Afrique mbooleem ku jàpp ci liggéey bi rek te nga yéene ci mbaa nga jëf ci rek cant loolu ak ngërëm agsi na ci yow kon daal ñoo ngi ñaan ci barke borom liggéey bi muy sëñ Touba mu faj aajo yi ñëpp niñ ko leeralee léegi tam liir na ko ñi bàyyi ko ci continent yi Espagne ak Europe fépp rek euh, ñi fi ñi fi ñëw ñëpp seen i daal tudd na leen tudd seen i tur kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo doxoon seen digganteek liggéey bi nun tam noonu lañ mën a seedee seen taxawaay ak seen pësteef ak seen jàpp ci liggéey bi euh, yéen nag yéen a tax liggéey bii ndax liggéey bi ñu ngi koy liggéey fii ci jumaa ji euh, euh, jege jumaa ji am na lool waaye nag sori ji jege am na ndax Sëñ Afe day wax ne bépp liggéey boo xam ñoo ngi koy liggéey ci jumaa ji rek ak lu mu rëy rëy rëy rëy moom jàpp ne bu waa jasporaa bi agsee rek loolu nañ ko bëgge seen danañ ko amee noonu kon nag ñu gën a takkuwaat te gën a soññee ndax daayira bi bu ñu waxee euh, dafa am loo xam ne diaspora yóbbul na ko aw tur daayira bi kon nag nan jaayante ba noonu mu ko yóbbalee euh, maanaam euh, jëf ji ak pëstef bi gën a yokk ndax dañ naan waa diaspora bi te bu ñu nee waa diaspora bi rek Amérique ak Europe ak Afrique ñu ñu ñu bari dañuy daal ne waa diaspora yi ay centaine de millions lañ fi indi wala lañ fi indi lu bari la xeebuñ ko ndax ñoom la ñuy indi bu ñëwee rek am solo. waaye léegi-léegi itam ab liggéey ñëw ndax boo xoolee rapport bi diaspora yaatu na waaye na ay juróom benn réew juróomi réew ñooñu ñoo ñoo ñoo ñoo teewal seen jëf ci màggal gi màggalu ren gi bu dee Afrique dégg ngeen ko Côte d'Ivoire lañ fi tudd yaakaar naa ak Mali ak ban dëkk ñaari réew ak Côte d'Ivoire xaw ma xaw ma Conakry ak ak Conakry ñetti réew ñoo ci jàpp ñoo ci ñoo ñoo jàpp ci liggéey bi bu dee Europe itam dégg ngeen réew yi yi nga xam ñoo bàyyi ko Europe yaakaar naa bu ñu fi tuddee Italie lañ fi tuddu ak Espagne yaakaar naa ak euh, France ak euh, Angleterre yaakaar yi réew yi ci réew yi participé ci wàllu màggal gi xeebuñu ko waaye itam buñ sañoon nag réew yooyu yëpp ñu daan jàpp ci liggéey bi ñu gën a fàttalikuwaat gën a soññewaat kenn ku ci ne nga soññiwaat sa bopp soññi euh, képp koo xam ne rek. bu bu bu soññi beegee ci moom mu mën a jàpp ci liggéey bi waaye fii nuy wax nii soxla nan daal réew yi ne diaspora bi ñu wuy siwaat gën a jàppaat ci liggéey bi ndax liggéey bi rëy na liggéey bu mag a mag a mag a mag moo fi am boo xam ne eh, dégg ngeen ni ko leerale lu lu màggalu ren gi lu ëpp 1800 personnes ou 1700 personnes yoo xam sëñ Ablaat leeral na ko léegi seen biste toll ci 18 millions jënd nañ juróom-ñeent nag yoo xam ne maanaam loolu bokku ci ceeb bokku ci ak leneen ak leneen leen te loolu ci participation yi rek lañ koy génnee kon daal euh, pour ñu gën a gagner temps bi ñoo ngi sant ñëpp di di di jaajëfal ñëpp tey ñaan suñu borom mu gën ñoo yokk tawféex ñu gën a ñu gën a jàppaat ci liggéey bi waaw ndax ñun moom lépp lu egsi ci réew ci ci waa diaspora buñ ko yëgee jàpp naa buñ ci buñ buñ ci sóoboo duñ ca xaj waaw loolu nag Euh, kon ñu ñu ñu ñu gën a jàpp daal ñu gën a jàpp ndax turu turu diaspora bi moo rëy ndax turu diaspora bi bu ñu koy waxee <coughs> France ak Italie ak Amérique Argentine ak Brésil Turquie réew yooyu yëpp dañuy dugg ci turu diaspora bi fi ñu am ñoo xamuñ xamuñ lu xew man damay dajeeg fii léegi kii nit sax mu ne ma waa diaspora bi day dégg naa saña asan wuy si nañ ci jumaa ji lañ fa indi ay milliards la ay millions yu dul jeex ma ne ko waaw loolu moom loolu moom sañ bee ñu ko foofu rek laa yem kon nag léegi ni ma koy waxee waxuma ko ngir xeeb Pastef damaa xam ne rek am nañ tawféex waaw ndax tawféex ji mooy bu ñu nee jumaay sëñ Tuubaa ji tudd waa waa biir réew danañ tudd waa diaspora kon nag waa diaspora nañ gën a jàppaat waaw yi ñu fi soxla moom yu bari buñ ko fi waxee fii yàlla dafa leen ci tawféex at mi mujj biñ fi toogee fii wax ba tudd añi ajuma yi bi bi ci waa diaspora bi sooboo gis ngeen fi fi yóbbu liggéey bi tey jii loolu seen xel dal na ci waaw kon loolu rek laa ci doon ubbee xam naa lu ci dëng rek ñu jéggal ma ko waaye maa ngi ñaan nag ci barkeb borom liggéey bi barkeb seexul xadim suñu borom faj aaju yëpp waaye cantuk daayira bi daal a ngërëmul daayira bi ak ñaanu daayira bi loolu daal moom moom moom sëñ sëñ sëñ bi wax na ko te it na ko kon nag képp ku ci doon jëf daal na nga wóor na la wóor ne yow la sëñ Tuubaa di nga woon ci jumaa ji moom dal na la waaw yàlla nañ ci dajeeg nag barke waq di xawaayi jëli si na daamoo fi xidmati wa ablahu maaraamoo inali si na saaraxoon li xidmati wala mu diyaara wasal jannati jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf aouzu billahi min asheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci turu Sëriñ Afiye Buso mi nga xam ne moo jiite daairatu muxaddamatul xidma ak turu kilifa yu tedd yi toog ak yi ñu fi wuutu yépp ñuy jawriñ ci daairatu muxaddamatul xidma ñoo ngi nuyu sunu kilifa yu tedd yi teew tey jii ci jataay bii di nuyu di ziyaara kilifa gi yoonu murit yépp muy as Cheikh Mouhamadul Muntaxaar di ñaan sun borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér ba mu àggale mboolem naal yi nga xam ne naalal na ko Serigne Touba di nuyu it kilifa yi topp ci moom di njabootu sëriñ Touba gépp waaye di nuy itam kilifa yi nga xam ne ñoom la seeni wayjur wala seeni maam àndoon ak Serigne Touba dañ taxawu yoonu murid ba egsi fii ñu egsi ñoom ñëpp ñu di leen nuyu di leen ziara di leen dokkeel ci màggal gu tedd gii tey ñaan ñun ñëpp luñ ci jëf ci lu baax yàlla nañu ko suñu borom nangul ci barkeb Serigne Touba. te sëriñ Touba gërëm ko lu ñu ci def ci ay rëcc rëccit yàlla nan nu ko jéggal di ñaan ñu teewaat ko at yu bari ci kanam may tàmbale nag ci nuyu jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekkal mu daairatu muxaddamatul xidma ci diaspora bi yépp ci Afrique ci njiitul sëriñ Mafari Njaay mi nga xam ne tudd nañ ko fi léegi te muy jàmbaar lool ci ubbi daayira bi ci biir Afrique nangu cee sonn lool nangu cee taxaw ay taxawaay yu am solo am xalaat yu rafet lool yoo xam ne fu jëm yóbbaale ko fa ñu ñaan suñu borom mu defal ko wér te yokk ko taw tawfiq te mottali ay yéeneem ci liggéeyam Serigne Touba bi waaye di nuy itam coordinateur yi nga xam ne ñoo nekk Europe ñëpp. da foofu nag xam naa damay ñaan jëwriñ général sëriñ Assane Diop ma taxaw tuuti ci moom nag ndax day jàmbaar joo xam ne itteem jépp ak jotam gépp ak manam ak xamam ak lépp daf ko delloo ci sëriñ Touba waaye delloo ko ci Muxaddamatul Xidma gi ba far sax dafa bokk ci aw turam jëmmam it di symboliser daayira bi léegi nga xam ne fu ñu ko séen day mel ne seen nañu daayira Muxaddamatul Xidma te loolu lépp nag pas-pasam ak wallanteem ak bëggam liggéey bi jëm kanam dana ko yóbbi sax ay coono yoo xam ne wallaahi yàlla rek moo ko xam dana ko gàllankoor ci liggéeyam dana bàyyi lu bare baree bare bare bi loo xam ne mënoon na ko li lijjanti ci mbiri boppam ngir taxawoo ko liggéey Serigne Touba yi kon Serigne Assane danaa koy wax léeg-léeg mu woo ma di ma tooñ naan ma maa ngi dem béréb sàngam danga may ñaanal ma ne ko déedéet Serigne Assane man du la ñaanal Serigne ñuy faral di dégg ci làmmiñu sunu sëriñ bu baax bii di sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou Lahad muy wax ne Cheikh Abdou Lahad daana wax ne sëriñ Touba laa doon liggéeyal ba samay moroom raw ma nopp mësu koo dégg bët mësu koo gis ma teg ci ne nopp du ko dégg waaye bëtit du ko gis kon sëriñ Assane ñu ngi lay sant bu baax léegi la waxaat rek kàddu yi sëñ Afia waxoon te mooy seen jëf day seere moom ñu ñooy nekk seere ci seen diggante ak Serigne Touba ndax nun moomuñu liggéey bi dañ koo ànd ak yéen nekkal leen fii rek ngeen nekkal ñu fere ñu ñu ñu ci jéem a yëngu ngeen di fexee nuñ ci mën a yëngoo mu dox kon day mel ne kenn mënu cee dem bàyyi moroomam mënuñoo jàpp ne sunu yëf la mënuñoo jàpp ne seen yëf la ndax complémentarité moo am ci diggante bi dañuy mottalente rek kon nag sëriñ ci kàddu sëriñ Afia maa ngi lay jotli cant gu mat sëkk goo xam ne donte man lott naa ci jotlee ko ni ma ko war a jotlee waaye ci seen xol yu rafet ak seen xel yu rafet dangeen ngeen ma ko mën a mottil ba mu mat sëkk jërëjëf waaye nag ñu di lay yóbbante ci ñi nga xam ne loolu soo ko mënee ñoom ñoo la ci jàppale te mooy jëw jëwriñ ñi nga xam ne ñoo nekk ci mboolem réew yi nga xam ne jaar nañu fii tey wax ak yeneen jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci réew yi nga xam ne suñ boroom dogal na tey mënuñoo teew ñoom ñëpp kenn ku ne taxawaay boobu sëñ Assane am moom xëy na day coordinateur général waaye kenn ku nekk taxawaay bu mel noonu nga am ci réew ma nga nekk te kàddu yi jib fii tey seere na ko yéene ji ngeen am ci liggéey bi wax ngeen fi ba xol yëpp tooy te kenn ku nekk li ngay wax ci sa biir xol gi la jóge yéene joo am ci liggéey bi mu jëm kanam rek nattable wuñ ne kenn ku nekk ci yéen su fekkee woon ngasum raay ba kenn du ko ci man nattable wuñ ne kenn ku nekk ci yéen bu fekkee woon ba ñuy yenu xeer yi ndokk di ko indi kenn du ko ci man nattable wuñ ne kenn ku nekk ci yéen bu fekkee woon ba ñuy yenoo ca gaar bu mag ay saakoy ciment di dox ñaari kilomètre di ko yóbbu ci jumaa ji kenn du ko ci man loolu nag ku mu doyul dara du la doy yéene nag mat na sëkk li ngeen ci man it lépp yéen a ngi koy def liggéey bii nag day taw feex joo xam ne ni ngeen ko waxee yéen ñëpp ci kàddu yëpp dégg naa ko ci mooy ku ci dugg Serigne Touba moo la ci dugal ndax moo la bëgg a liggéeyloo Serigne Touba nag du liggéeyloo kum nërta ta fay kon képp ku ci dugg rek daa fekk ne sëriñ Touba moo la woo ci liggéey bi ngir war laa fay am na fulla ju toll ne du liggéeyloo kum fayut waaye du liggéeyloo kum nër ta fay itam nag kon ku ci dugg rek taw feex jooju moo la ci dugal. ku ci ñàkk a dugg nañ koy soññi te di ko laabiire bu yàggee yàlla mën naa def mu dugg ci biir di sant nag yeneen gox yi nga xam ne itam duñu orop mën nañ cee tudd Amérique Serigne Cheikh Jonn ak ñi mu àndal wax nañ fii ak njàmbaaram wax fi yitteem wax fi nu mu taxawee ci liggéey bi moom ak soxna may Maymuna mi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi nos ko nosin woo xam ne it Euh, machine wu am solo la te mooy dañ ko def ci plateforme boo xam ne sonnatuñ sax ci di wër di laaj ak yu mel noonu waaye kenn ku ne weer wu dee ci sa compte lay dagge directement mu dem ci liggéey bi liggéey bi di ñëw koor màggal ak gàmm ñu di ko toppit ba lépp agsi di dem ci liggéey bi mu nekk lu am solo ci yoon wu ama am solo boo xam ne sëriñ Assane wax na ko fi daaw xaw ma daaw jéeg ci di ko proposé yenn ba yaakaar naa Espagne sax sosoon nañu benn association ngir mën a def def lu mel ni noonu nga xam fondation bu mel ne bi Amérique def euh, yaakaar naa ñu ngi ci yoon woowu di jeet nuñ ciy doxee ba mu dox kon moom it wane na yoon ñaari yoon wane na yoon ci njàmbaar waaye wane na yoon it ci nos liggéey bi ci noo xam ne dana ko noppal ci wër di soññee ak leneen waaye ku xas ba engagé wu la nga engagé wu day ñëw directement dootu la dootu jar ñu di la ci soññi te loolu it nekk lu am solo la waaye ci biir so eh, sant yooyu ñuy sant kilifa yi itam mënuñu cee ñàkk sant nag suñu kilifa yi bopp yoo xam ne dañu noo taxawu lool mën nañoo wax ne su liggéey bi àggee bitim réew wala mu tasaaroo ci bitim réew nii bu fa demee yàlla def na seen taxawaay kooku nag ka ci jiitu mooy sëriñ Mam Moor moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ndax moo njëkk a wax ne liggéey bi da ngeen di tànn ndaw boole ko ak man su may dem Europe ma ànd ak moom wër Europe gépp installé fa liggéey bi samp ko fa ba ñëpp xam ko ñu boole ko ak Serigne Abdou Lahad mii booba ak léegi mën na fukki at ak ñaar mu xam le liggéey bi ci Europe gépp ba tey jii suñu bokkee di daje fii tey jii daje bu rafet bii yaakaar naa ca loolee la bàyyi ko kon Serigne Mamor ñu koy sant di ko gërëm tey ñaan moom it jéego yi muy mottali ci jéego yi Cheikh Mouhamadul Mourtada ak ngërëm lim ci sàkku ak liggéey bi mu ci liggéeyal Serigne Touba lépp suñ borom defal ko ci li kawe njortam ak yéen ñi nga xam ne moo yéen yéen a ko ànd naka noonu Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadil fu mu dem ci àdduna bi rek dana fa taxawal a soññee fa taxawal fa ay jëwriñ fexe ba dara jóge fa ñëw ci liggéeyu Serigne Touba bi du ci tàyyi du ci sonn du ci bàyyi. waxtu wu nekk mi ngi ciy gën a góorgóorlu ñooñu suñ leen tuddee danañ yóbbaale mboolem seen mbokk moo xam ne mi ngi ànd ak ñoom ci liggéey bu mel noonu di ko taxawee ci bitim réew. ci biir kàddu yi nag dégg nañ ci ay kàddu yu am solo yoo xam ne dawloo na yaram lool bokk na ca kàddu yi nga xam ne mbokk mi nekk euh, Uruguay wax na ko ci néew guñ néew foofa waaye pastef bu ñu am ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi ma koy fàttali rek wax naa ko léegi ne ko. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ni ab murit nekk fi barab di fa benn ak di fa junni ñoo war a yem ci moom pastéef rek mooy li am solo bu pastéefoo wa xiila rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin xiimatu xiimatan ka uffin bari nag benn nit boo xam ne wecc ne junni nit waaye bari na junni nit yoo xam ne wecci wut sax lu mat benn lu mat kenn fexe ba nag kenn ñu nekk ñenn wecc junni mooy li am solo te ñoom loolu lañ def kon jërë ngeen jëf waaye li ñu waxoon léegi rek ci kàddu googu nga xam ne jële woon nañ ko ci sëriñ Sidi moomu lañ leen di wax sëriñ Tuubaa laa doon liggéeyal ba samay morom raw ma moom nopp mësu koo dégg te bëtt mësu koo gis kon na ngeen xam ne fa ngeen nekk wéet fa waaye di fàttali ko liggéey bi ngeen di liggéeyal sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa nekkoon na ci barab gën leen faa wéet fuuf gën leen faa tubaranke fuuf gën leen faa sonn fuuf te teewul mi fàttali ko jëwriñam ji di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu sa am benn jamono joo xam ne la ko war ci digganteem ak moom lépp du ko ko jox ba mu mat sëkk. kon nag bu ngeen doonee ay taalibe gise ne fa ngeen nekk xëy na juróomi nit képp ngeen fa waaye war ngeen a fexe ba di am lu fay bàyyikoo di ñëw ci liggéeyu Serigne Touba bi ba benn événement du am te seen addee ñëwut loolu day wane Pastef bu ngeen am ci Serigne Touba damay koy joxaat itam mu nekk ab soññi kilifa yii doon soññee ci seeni jawriñ loolu ab soññi la boo xam ne jëwriñ yi nga xam yi ngeen di wax nii war nañoo jot ci juróomi nit yi nga xam ne ñoom ñu néew lañ ci barab bañ nekk waaye duñ fàtte mukk liggéey Sëriñ Tuubaa bi duñ ci tàyyi te duñ ko wóote itam ah li ci des nag mooy jafe-jafe yi nga xam ne ñu bari jàmbat nañ ko fi jafe-jafe yi metti na lool ci àdduna bi du ne du rek ci Guinée ak ci Mali waaye ci àdduna bépp la waaye Sëñ Tuubaa nag waxoon na ni wali siwaaya yantaxi dayru zaman moom jafe-jafe jamono ak mettitu àdduna wan na ko ginnaaw di dem te du ko jublu du jublu kookam Sëriñ Abdul Ahad dafa waxoon fii ne mbay mu nangu xol yi nangoo ko gën a wóor te xol yi nangul nañ Sëriñ Tuubaa te dootuñ ko gàntul kon ñi seen xol nangul Serigne Touba ñu mën a nekk lu jamono xat xat xat xat dañ ciy génn ñoom ku ci mënta génn rek xoolaatal sa digganteeg Serigne Touba waaye ku def ku taxaw sa digganteeg Serigne Touba sellal sa pas-pas ak sa yéene yow da ciy génn jafe-jafe yi metti na lool ci réew yooyu ak niñ ko waxee waaye ñoo ngi nii tey jii màggal si nañ te amu ci kenn koo xam ne ba nga ñëwee la la war sa kër defoo ko kon mënoo say morom ëppoo leen leen waaye sa pas-pas ci sëñ jubaa moo la may loola pas-pas boobu nag fii ak yéen ngi ànd ak moom di am lii di am lu ko gën kon nag jërë ngeen jëf bi ci mooy añi ajjuma yi añi ajjuma yi dañ koo tuddee añi ajjuma waaye léegi tuddatul añi ajjuma añi jumaa ji lay war a tudd ndax yëmatul ci ajjuma yi ñaata yoon ci at mi la sëriñ bi woote ci jumaa ji ay njàng ak ñaata yoon la woote ajjumay Tuubaa yooyu yëpp bu ci ne du ñu yem sax ci génne lu defar benn bisu ajjuma yañ daan def waaye dañuy boole ay ajjuma yéwéne la ko bis yooyu ndax bis yooyu noonu lay toll muy bisi xaside yi di bisi muy woote njàngum alxuraan di bisi mu tuddi woon ajjumay Tuubaa yooyu yëpp bu ci ne seen aji ajjuma yii ñu tudde woon aji ajjuma même bu dul ajjuma it dugg na ci biir liggéey boobee loolu nag da leen di yóbbee saxaar gi gu taxaw war a dem saxaar gu taxaw war a dem rek dana leen di yóbbaaleel dara ndax ci entretien yi ñu doon def ci wàccaayu koor gi seen ñaq dem na ci seen entretien yi ñu doon def ci wàccaayu màggal seeni ñaq dem na ci bisi de yooyu seeni ñaq dem na ci ajjumaytuwaay yooyu seeni ñaq dem na ci te la leen ko may mooy farlu guñ farlu ci yemuñ rek ci ne at mi nangami àjjuma la kon nañ ca nañ nañ ko dajale yem ci buñ ko defoon xay na bis yooyu deesu ko mën a def mbaa buñ ko defee mu manqué waaye nag seen góor góorlu ak seen itte xamal ne sëñ xam ne sëñ Tuubaa loo koy wutal doo ko limité loolu moo tax liggéey bii mën a demee ni mu demee kon nag jërë ngeen jëf nii rek la yoon waa ngi noonu waxoon nañ fi nag ay yitte yu ñoo itte woo woon daaw yitte yooyu moo fi nekk bareen ñu jàpp yit ne du waxtoo ma jotagut waaye pas-pasi taalibe bi jéggi na ko seen man-man it jéggi na ko waxtu rek lay xaar waxtu yi nag ñu ngi ñaan suñ borom mu def muy ren lépp sotti tuddoon nañ fi ab ambulance médicalisée wax nañu léegi Serigne Fallou Diop wax na tolluwaay bi pas-pas biñ ci amoon ak yéene jiñ ci amoon xëy lañu bëggoon sax mooy mu ñëw li jiitu màggal waaye ñëw lu jiitu màggal ak ñëw ginnaaw màggal ñoo yem ndax lépp li mu fiy def moom mu ngi fi te du fi jóg te waxtu wu ñëwee am njariñ kon sëriñ bi seen pas-pas a rëy rek ngeen amoon yéene mu ñëw li jiitu màggal waaye su ñëwee ginnaaw màggal it yeneen màggal mën na ko fee fekk te bu ñëwee lam doon jariñ ci màggal gi dana ko jariñ ci màggal googu kon nag ñu ngi leen di soññ bu baax di leen gërëm bu baax waaye di santit waa Italie ci médicament yi nga xam ne fàgg woon nañ ko mu doon lim bu rëy bu bari boo xam ne dañoo amoon yéene ñoom it mu jiitu si màggal gi ba coono yu nekk toggoon nañ ko ci sëñ Assane may jóge na France dem itali ànd ak euh, sëñ Ibrahima Seye ñoom ñii ngir taxawu liggéey bi bëggoon mu ñëw li jiitu màggal waaye yàlla dogalu ko waaye ñu ngi koy séentu nag ci fan yii muy lu rëy waaye li ma wax léegi rek bu ñëwee ci màggal gi mun a weesu dem ci taalibe Sëñ Tuubaa bu ñëwee ci ginnaaw màggal yi taalibe yaa ngi fi te koy jariñoo te événement it du jóg Touba moom waxtu ne xew yaa ngi am kon yéene ji ngeen amoon ak pas-pas ba ngeen amoon yéen ak waa Angleterre pas-pas boobu dara ku ci te xëy na Serigne Touba moo ko bëggee nii mu ñëw ginnaaw màggal waaye waxtu bu ñëwee dana am njëriñ lu toll ne lam daan am kon jërë ngeen jëf ci taxawaay yi ngeen ci am ci dajale garab yi ci sàkk ko ci ku ko war a indi mbokk mi ko war a indi di sëñ Ibrahima Dieng la ñëw na fi barki dem bu ànd ay partenaire am yoo xam ne ñoom ñëpp bañ egsee jaajuwaat nañu wax ne fas nañu yéene luñ defoon rek bañ gisagul buñ doxee ba gis teg seen bët fas nañ yéene buñ delloo lu ko raw lañuy def waaye dootuñ ci dellu gannaaw mukk te fas nañu yéene it mu sax loole nag nañ ñaan yàlla mu nangu ko te mu doon lu sëñ Tuubaa nangu ndax bu ko nanguwul du mën a sotti waaye su ko nangoo lépp dana sotti kon ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm ci fànn yooyu. naka noonu waxoon nañu ñaari otoy ndox yoo xam ne ren jii màggalu ren firndeel na yitte jooju ni moom yitteele ndax wax nañ ko ci sëriñ kanamu sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdul Xaadir jamono yi màggal gi manqué nañ ndox lool ci jumaa ji manqué ndox lool ci armeel yi sonn lool it nag ci ngir am ndox coono bu nekk ñu daj ko ci kilifa yi lu ne daj nañ ko ci ngir mën a am ndox mu ñu liggéeyee ci ñaari barab yooyu te yaakaar naa ne fu koy fuy manqué ndox moom ñaari barab yooyu waruñ cee bokk jumaa ji waru cee bokk armeel yi waru cee bokk kon nag jàpp nañ ne la ca mën a tane la ca mën a tane ci saafara mooy am oto boo xam ne day sax ci jumaa ji am oto boo xam ne day sax ci barab yi fu mu sottee demaat indiwaat ba barab yooyu moom bañ a manqué ndox benn jamono te loolu nag yaakaar nañ ne yomb na lool taalibe Sëriñ Tuubaa yi moo tax ñu boole ko ci yitte yi nga xam ne yuy jàmp la naka noonu itam euh, ñaar ñaari baas yu mag yoo xam ne gàmmoo lañ koy soxla ak màggal waaye ak bis yooyu yu ma tuddoon léegi nga xam ne sëriñ bi da koy woote ci jumaa ji muy bisi xasida yi di bisi alxuraan yi di ajjumay Tuubaa yooyu nga xam ne sëriñ bi mu ngi koy def ñett sax la woon waaye benn bi suñ boroom def na tawfiq ba am nañ ko ndax ñaar yoo xam ne ngir taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw ci barab barab bi ci xew-xew yu mag yooyu te xam ngeen ne gàmmu gi léegi dafa dugg ci nawet bi at yi yëpp yàlla def na am na mbokkum taalibe moo xam ne xëy na mi ngi koy jaayante waaye Sëriñ Tuubaa lu mën a doon rek moo ko gën a yàlloo ñëpp war na koo am te mën na koo am te jàpp nañ ne taalibe yi itam am nañ yéene mu am ko kon nag nañ ci góorgóorlu ba ñaari bâche yooyu mën a am boo xam ne lu mu néew néew day am benn pour góor ñi am benn pour jigéen ñi te nekk lu mu néew néew néew yi bu mu yées bâche mille places yi nga xam ne moom la ñuy loué am nañu nag benn boo xam ne suñu borom defal nañu tawfiix am mbokkum taalibe bi moo xam ne jaayante na ko te mooy bi nga xam ne mooy bi nga bi ñuy yokke infirmerie bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji moom am na mbokkum taalibe mu ko jënd moo xam ne la mu war a àndal lépp ànd naag moom ànd naag palette yi ànd naag climatiseur yi ba yaakaar naa ku fa ñëw ren ba dugg ci biir baas bi xam nga ne baas bu complété la lu mel noonu it yéene ci baasu màggal gàmmu góor ak bu jigéen muy yoo xam ne yu dëppook jamono yi lay doon ndax am na yoo xam ne euh, wax dëgg yàlla kenn xalaatu koo jël di ko tegal Serigne Touba ci jumaam ji jàpp nañ ne li gën ci jamono lu gën ci yi ñuy jëfandikoo ci jamono loola la ñu war a jox Serigne Touba waaye kenn ko waru koo jox loo xam ne dangay ngay génn di gis leneen lu ko gën soxla nañu it oto mbalit boo xam ne day jël mbalit yi dëgg la. sonaa set ñi ngi góor góorlu bu baax a baax di jël si mbalit bi di indi ay poubelle di def yëpp ñi ngi def la leen war waaye nag am na taxawaay boo xam ne it war na nu nit ci jël mbalit mi di ko yóbbu rawat te waxtu ñu ñëwul rek bu ñu amee ñaari fan yoo xam ne am nañ gàllankoor ñoom wala ñett yoo xam ne am nañ gàllankoor ba ñëwuñ rek ñu gis ne mbalit mi mi ngi tàmbalee bari loolu it nag war nañ cee bàyyi xel ba am sunu oto bopp ñun itam boo xam ne daf koy day jàpp ci liggéey boobu naka noonu itam auto vidange auto vidange waxoon na wax nañ ko léegi am na ay jamono waa France andi nañ fi benn oto vidange booba it fi mu nekk nii moom yaakaar naa kum romb sax nga tatanoos waxuma dugg ci waaye kum romb sax nga tatanoos egg na foofu ci sonn waxtu bu ne ka ko yor du jóg garage sëñ Ablaye Diop mii nga xam ne moo ko seere euh, euh, mat na ci seere waxtu bu ne ñi ngay jëndi moteur ñu ngay jëndi weñ léeg-léeg dara dagg nga jënd léeg-léeg për bi ko sànni ko dali fële nga jënd léeg-léeg nangam neexutu la gis dal te waxoon naa ko léegi euh, ay ay bekkite ki sagar nag sëñ Tuubaa jomb na ko jomb na it sëñ Tuubaa lu ne la ci gën la ci war a am kon war nañoo fexe ba amaat ci boo xam ne bu bees lay doon mbaa bokk du màggat euh, tolluwaay bi nga xam ne forage su Bakhya bi am na ko itam te waa Touba Toulouse doon ko def mat naa leeral tuuti euh, defaroon nañu projet boo xam ne forage boobu su fekkoon ne suñu borom dimbale woon nanu ba mu mel na mu war a mel forage su pilote lay doon ci Touba boo xam ne. kuy defati forage moom danga ko xool ndax suñ borom boole na ko ay boromi xam-xam yoo xam ne ñoo ëpp xam-xam ci réew mi ci fànn googu te liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek ay seen yitte defar nañ projet boo xam ne ci teen boobu forage boobu benn forage bu koy gën ci réew mi kon dootu am loolu moo doonoon suñu yéene waaye nag jafe-jafe bi ci wàllu finance bi la doorul sax nag lu seer ndax loo xam ne lépp boo ko boole woon cent quarante millions lay doon nga am bi ci réew mi waaye suñ borom dogale dogalewu ko noona ba danoo mujj uh, di ko wàññi di ko wàññi ba mu nekk lu yem ngir jàppandi ci ba mën a am la gën waaye suñ borom it dogal ñu yéene woon mu sotti lu jiitu màggal gi ba taxawaay yu nekk daj nañ ko ci soññee yu nekk itam def nañ ko waaye yàlla dogalu ko yàgg nañ ci neen liggéeyal cabine technique bi rek wut ay taabal joo xam dañ koy tabax man cee teg ay réservoir ngir mu yor ndox mi di ko sànni muy dem waaye loolu lépp ngir amoon yéene yi mu noppi balaa màggal gi la waaye suñ borom dogalu ko àgg nañ ci ne nañ indi courant bi ñu jëlee ay poto ca poste ba ba andi ko ba mu tiim kër gi waaye suñ boroom dogaluwut mu sotti ci biir koor gi waaye ñu ngi am yaakaar nag ne ci jamono yu néew moom lu néewu néew danañu beneen fexe ba mu génne ndox su boobaa sax xëy na jafe-jafe bañ amoon ci armée ci wàllu ndox moom suñ borom mën na ko saafara lii daal mooy tolluwaay yi nga xam ne ci lañu nekk tudd nañ fi nag léegi ab lim bu ñu wax ne financé nañ ko ci diggante janvier ak 31 août muy juróom-ñetti weer ñu wax ne mi ngi toll ci 80 million yu teg waaye loolu ngeen bàyyi xel ne mooy li doon xaalis ñu génne ko dem jëndi ko waaye bokkul nag ak li nga xam ne daf fay ñëw ci ay jumtukaay yu ñu jëfandikoo màggal gii rek 18 millions nangam yi ñu leen wax nii ci dépense fukki nag. juróom-ñeenti nag ak ñetti giléem yi nga xam ne moom lañ jëfandikoo bokkul ci xaalis boobu ñu wax benn fepp ceeb buñ sóor bokkul ci xaalis boobu ñu wax am na it ndox mu ñuy naan bokkul ci xaalis boobu ñu wax ak yeneen ak yeneen ak yeneen nga xam ne soo ko nattoon lu mu néew néew dana dem ci fukki million koor gi ñu wax wax nañ leen léegi ba tudd ne euh, dix-huit ci matériel dolliku na ci li ci dikkoon bokkul nag ak jumtukaay yi nga xam ne dafay ñëw ñu di ko jëfandikoo muy tudd nañu li waa Turquie andi woon muy yi sëñ Abdou Lahad limoon léegi waaye bërki biig rek bërki biig rek sëriñ Moulay Seck mi nga xam ne moo yor euh, euh, agence de voyage Xaadimu Rasuul tey départ ujaajam yi di départ fii ci jumaa ji andi na fi ci matériel ay jumtukaay yu rafet yu jamono yoo xam ne ay matériel yu ménage la nga xam ne nit ñi amatul lu sëgg ci di di di fomp ay morso waaye andi lu mat fukk yoo xam ne ay jumtukaay la yu complété yoo xam ne daa ànd ak lii ménage sew biy def saabu sew bii def ndox mu set fi ñuy teg saabu bi ak lii wañ morso bi ami tànk nga di ko puus muy dem ak ay fëggukaay ak yeneen jumtukaay yoo xam ni xam naa ne yu seer la mënuñu koo estimer waaye ab lim bu seer la kon boo nattee ci lu gën a maandu lu gën a néew quatre-vingts millions yi ñu wax day romb cent vingt million di wéy boo ci boolee yi nga xam ne matériel la yu ñëw lii moom xaalis la boo xam ne ñu yor xaalis bi ñoo génnee ne lii lañ joxe dépense mu dem waaye ñu yor jumtukaay yi ñu ngi doon indi seen i jumtukaay dafa noppeeku doon yëpp waaye bu ñëwoon moom it dana mat 60 million lu mu néew néew kon ñu xam ne fii mu toll nii ci est bu doon estimer fi ñu toll lu néew néew néew néew ñi ngi ci cent 120 jàpp cent quarante millions yoo xam ne dépensé nañ ko ci juróom-ñetti weer yi te lii may wax nag euh, am na yeneen yoo xam ne bokku ci lu jëm ci session armée ya dara bokku ci moom section à la boo xam ne dañ koo dénk ab équipe bu ko yor suñ manqué xaalis daal ñëwuñu ñu jox leen ñu mottali la ñu war a fay loolu la ñuy seq ak ñoom te expliqué woon naa leen daaw defe naa daaw wala daaw jéeg na liggéey ba di doxe ñaa ca topp mooy ñi nga xam ne itam mooy ñi nga xam ne dañ leen jël ñuy liggéey ci biir ñooña am na ci ñaari façon ñoo xam ne dañ leen jël di leen fay weer ñuy liggéey ñooña bokkuñu ci lii muy ñiy garde ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy liggéey ñooñu it bokkuñu ci lii ndax ñooñu it dafa amaat beneen saison boo xam ne moo yor seen wàllu économie kon lii lenn la ci liggéey bi waaye du lépp lenn la ci liggéey bi waaye du lépp waaye nag mbir mi yaat na yaatuwaay boo xam ne ay nit waxoon nañ ko fi daaw buñ seqee ab liggéey daa war di leer seen bopp ba ñu xam ko moo tax ñu di ko wax waaye waxuñu ko ngir wane ne lii la def wala ñu di ko naw wala ñu di ko xeeb Sëñ Tuubaa kenn du ko nawal kenn du ko xeebal waaye nag ginnaaw dañ ko séq di ko liggéeyal sëriñ bi ci suñ biir moom war nañ koy leeralante ba mu leer ci sun bopp ba kenn ku nekk xam li ngay def ak ñi ngay woo li nga leen di woo fan la jëm ak ci lan lañ koy def lii daal moo doon doonoon kàddu yi nga xam ne moom lañ bëggoon a wax ci turu kilifa gii toog di Serigne Afia xam naa luy des ci kàddu yi moo koy complétel boppam waaye euh, lii rek mooy li nga xam ne moom la fi la sunu xel sunu xel toll ñu waxe fa ak yéen waaye mënuñoo mënuñu ko mënuñoo matale kàddoom ni nga xam ne noonu la ko bëggee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balaw àq ñëpp di séntuwaat ñëpp ñu bokk fi teew ni gën déwén tey ñaan suñu borom ñun ñëpp ñu gën a wér ñun ñëpp ñu yokk ba kenn ku nekk luy sa yéene nga man ko te buñ fi teewee dégg déwén liñ fi defoon ren doon asakay lañ fi war a def déwén suñ borom mën na ko yàlla na ko suñ Tuubaa eh, nangu eh, gërëm ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.